telespectadores. téléspectateurs yi nga xamante si yéen a taamu di topp seen suite nga xamante si moom ba mu yéene liggéeyal Serigne Touba mu àggale ko ci lañ ko àndee woon tey nag ñoo ngi fii nga xamante si moo di biir bayti ñoo ngi ni nga xamante si modi barabu mam maam no ibrahim damal daru ñu fas indi li nga xamanteni ci si mooy fi am ak ambiance bi nga xamanteni ci mo am ci bir barab bi ngeen di ci andak ndey jam Thiam mu leen koy gunge ci anam bi ngeen ko bëggee ñu dugg ci bir wan leen li nga xamanteni ci mo am ci bir barab bi ya maa tudd Ndak Fall. neex rek ñu sant rek yal nañ ko fekk nege ni déwén bu namee ñaaw yal na ne ren di ñaan yal nañ gisanteeg maam Thierno Birahim. waaye màggal gi neex na am mu jot rek ñu dikkee kër gàmm rawatina leen ñun nag a démb ba nag a ñoom waaye ay bernde rek dara moom boobu rek man kere bi si laa di Touba waaw ma di sant rek di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen fi ñëw ñu fi daje ngeen daje feeg yéen daaw daje feeg yéen ak yëpp yal na ngeen siyaat ak ñoom daal am wér ak tànn sant yàlla ak ñëpp waaye ñaan ci màggal gi rek yàlla ko yàlla na ngeen jëf kuy taalibe rek ñoo ngi lay ñaanal bis bu tedd bii nga xam si mooy bisu borom daaru di la ñaanal sunu boroom di ñaan si sunu borom yàlla sunu borom nangul ñu ñaan yëpp. waaw ndax parce que wax dëgg yàlla bis bu toll nii yombul ndax parce que bis boo xam si sunu borom subxanahu moom moo ko jox borom daaru pour tere la ko ko ñun nag ñoo ngi jóge ba Louga. waaw diwaan diwaan Sihul Jaar wa fii axbaar saraay waaw sunu jëwriñ di Baye Ibrahima jaw ngi tudd Mamadou Ba. Serigne Mamadou Aliou waaw ñu rek. ndax bu yàlla defee ñu jóge ba cees dëkku Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni nga xam ne def na lu rëy foofu Thiès ñu jóge foofu ñëw jógee fa démb ñëw fanaan si. yàlla may ñu ñu yegg ñëw ba yegg si ak jàmm kon loolu sant yàlla la ñuy sant yàlla bu baax ñëw fii nag tasanteeg yéen ngeen ñëw di def liggéey bu rafet ci fii ci télé bi ñu am kon am nañu war a mën a am seede yu ñuy wax ci maanaam ci bisu màggal gi ndax Thierno jar na ko ndax bu dee diine am na ko ba mu doy sëkk ndax da ko doon doxal ci dëkkam bii ndax Thierno nee na maam Thierno nee na dëkkam bii lu fi waay ñaan yàlla da koy nangu ci kaw na nga tek ko ci ndub dekk bo musta moy yalla nak lo fa ñaan suñu borom dala koy may kon maam gatcha ngala ma lu mu def na lu reuy ndax buñu faté né mam maam ba suba bi woté won suñu Bamba mom la yoni won mu dem dar kon dal ñun ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax ci magal bi tay ñaan yalla ñukoy fekke ay ati ati ati at di ñaanati tam seen télé bi ngeen dem ba am bu ko gëna reuy ngeen koy ngeen koy woné fu ne ñing koy ñaan yalla

nga maam Thierno moom liggéeyam dafa reuy ndax seigne Touba daraam tuutiwul lu toll ni sëñ Touba di dem ci geeg gi denk la njabot gi loolu ça veut dire rek ce que ça veut dire donc euh, maam Thierno dafa am cër bu reuy ci seigne Touba am cër bu reuy ci yoonu murit ba tax na buñu ñëwé di magal bisam bi képp ko xamni suñu borom mën loona nga ñëw ex fi siaré def nga sa way ndax maam Thierno daal moom euh, man la ci yoonu seigne Touba bi ndax mo tax bi ñëw fi tamit profito siyaar si doom yu baax yi ñom euh, Baye Cheikh xadi ñom sayyidina Ousmane papa yi Sëñ Modou Kara ak ñom sayyid dam ambake dal dar musi dal kep ko xamni ne murid nga mu xewle rek war nga fi ñëw ndax bi señ bi dem njabot gi yep la la mam tierno te ñun ci njaboot gi lay wax kon nak ki ñu dénkoon la ñëwoon di ko ko magal man mi talibé señ mustafa bu señ Abdou Khadir la ndax taalibe señ Abdou Khadir la waye nak ñëwoon ci gox bi ñëw siyaare si nu andi woon ndax këñ la nga xam ne moom lañ la dénk bi sëñ bi dem bu fekkee bisam ñëw na war ngaa ñëwoon njugal ko na ko loolu moo ñu indi Daaru Musti waaw jërëjëf sant bu baax

ak sawaay ji dafa war a am loolu la quoi ah. amin amin yaa rabbi amin amin yow mii sax dañ lay offrir benn robe boo fi jaaratee bu soobee suñu borom incha allah dégg nga